السلام عليكم سيرين خادم مأمون باكرة بسيج فالو ما رجل نيو تما خبون نك كم دفع بيجي بيجي قدي تما خلاص بلا ما يما فترة موبايل لين بين أوديورك فكني دمغو دارجة كده بو أجهرك نجا ديتل مكو بوكيا سفكني أمن جد إن شاء الله ñu leen di sant bu baax di leen ziare te leen nuyu te teg ci mi jëwriñ ji ak euh, sëriñ Abdoulahi Seck ak mbokki taalibe bi foofu yëpp rek góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziyaare di leen fàttaliku di leen leen baal leen ñaanal sakku ci yéen ñaan di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nekk di weeru rajab di weeru alquran di weeru julli juróom kon di weeru lislaam di weeru sëriñ Tuuba yàlla baax ñu itam weeru Cheikh Amadou Fadal mi xam ci la feeñ ba mën a liggéeyal sëñ Tuubaa loolu moo tax mu ne loolu moo tax mu fenk ko mu fonk ko ngeen ko xamee lu bari ci nit yàlla yi si biir rajab la ñu feeñ bokk na ci ci jabootu sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamed Fadel ak Cheikh Abdoulahi borom dër bi moom itam fukki fa yeeg juróom ci weeru rajab bi la feeñoon ca ca yéen Cheikh Mouhamed Fadel feeñ ci ñaar fukki yeeg juróom-ñaar ci Daaru Salaam kon ñu koy waajal bisam bu tedd bi di ñaan ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te lañ fiy jàng ci alquran lépp di ko fi jàng ci xasaayit yàlla defal ñu barke ba ak secret te yàlla jëli fi mbas mi musul ñu ci musul ci jaboot ak sëriñ Tuubaa gépp ci ñu la woon nag génn xasida goo xam ne ko defoon ci sëriñ bi comme gën naa leen jot suñu lépp suñu yëngu toog suñu dal lépp sëriñ Tuubaa la yéen itam ñu xam seen sopp sëriñ Tuubaa ak bëgg sëriñ Tuubaa te ngeen di jàngat moo tax bu ñuy wax ak yéen saa bu nekk dañu bëgg waxeen wa nekk waxeenu koy wax ak jàngkat waaw bu ko defee rek moo taxoon ñu defoon genn euh, xasiida ci sëriñ bi euh, barkeeloo ko ci turamu tedd bi euh, toppandoo ko ci noonu muy defee itam nga xam ne léegi day jël ab baat wala mu jël ab jël ab ab xikma wala dara def ci xasiida goo xam ne da koy tënkee aaya boobu wala da tënkee ko baat yooya قصائد المقيدة اللي مثل الحمد لله باري باري باري الله لا إله إلا الله الله محمد جبريل أك أي هناك هناك لمني مقدمة الأمدا ممكن تنكي آه، هناك على خلق عظيم قصيدة قد يوهر وخبر قد يفتي آية بوبو سني برد تجيء النبي صلى الله عليه وسلم مجل آية بينك عرفوني مدفتي فك بيت النار بيتوني كتام لي عرفي جيخ عرفي

te wax ne dañ wax rek ci waati wolof mooy xalim xam naa ci lu wér ne ayin laa ko tàmbalee alimtu yaqinan annaka cheikhu wala gaws wa anna alladi aada dama ko tàmbalee araf yi mu di te ci baa bi te ci daal lañ ko toppee ba ca rasuli ba ca haaga xam rek waati wolof lañ ca wax rek mooy sëriñ bi la ñuy waxal ne ko xam naa bu wér man ndongo si di maamun xam naa ci lu wér na yowee sëriñ bi yowee sëriñ bi nag wi xam naa bu wér itam ne ku la noonu rek dañ lakk lu bonam ci waxin ku la woon dana alku dañ lakk lu bonam ku la noonu rek ku la jubluwul yow sëriñ Tuubaa kon ndokk mi ngi la jubloo leer na ma naññ ne yow sëriñ bi di nga am ci yàlla bari na lool te xamoo lu dut lu baax lu baax lu baaxul lu jublu ci yow mukk ci àdduna donk lu baax rek nga xam lu baax rek nga am da sax yow sëriñ bi kenn koo xam ne yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi jaamin woo xam ne ak liggéeyal boo xam ne kenn mësu koo jaamu kenn mësu ko te kenn dootu ko jaamu kenn dootu ko liggéeyal tam mooy sa soppe boobu yàlla ci lépp lu dul noona ko jegee ndax damay wax ne sëriñ bi rek ak ñett ñett lañ seq sëriñ beeg yàlla sëriñ beeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ beeg bindeef yi sëriñ beeg da koy jaamu jaamu koo xam ne kenn mësu koo jaamu te kenn dootu ko jaamu itam sëriñ beeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koy liggéeyal mooy xidma alaqatal xidma liggéey boo xam ne kenn mosu koo liggéeyal te kenn dootu ko liggéeyal tam te yàlla nangu liggéey bu bépp sëriñ bi sëriñ beeg bindee dañuy jariñ te amul dara ci lor wa nafa'al waraa fi subhihi wa masaa'ihi ba wax jariñ bindee fi ci ay subaam ak i ngoonam kon nag yàlla moom lay ñaan mu julli te sëlmal ci sang boobu sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne bu laalee ko feebar mu wér ci leeram gu tedd ga sëñ bi wax na ko. ثم على من حيث مس ذا مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض waaw kon ci loolu laa roy jëlee li sëñ bi nekk ku feebar feebar bu mën doon bu ko yonent bi laalee rek wala mu laal ka mu dal leeru yonent bi barkeelam feebar day wér kon ci la ñuy yow lay feebar bi lëmbi àdduna si di coronavirus covid 19 covid 19 ko feeg jàmm wéral ci ñum dal ñëpp wéral leen ñim yóbbu yàlla yërëm leen xar leen àjjana yi gën te ñun ñi fi desee yalla musal ñu ci mu ci ci ci barkeb Sëriñ ko ké nak sa bu ne Ang moom kañu tan ak mbax bu doon am baxtan moy moy mo ñom baxtan lu bax qimatul khuyur sallallahu alayhi wasallam. kon suñu dundu ak suñu faatu lepp def nañ ko fida def nañ ko ak joto ñel jambar jojé di sallallahu alayhi wasallam. suñu dundu suñu dé lepp def nañ ko ak njot ngir jàmbar jàmbaar joojee ndax yow it ki ko liggéeyal liggéey bo xam da nga koy wéet da ci liggéey bi ko kenn du ko liggéeyal liggéey bu ne mel kenn mësu ko liggéeyal te ndax nag da nga ciy defee ñëpp lépp lu ñuy am ci moom lu baax rek li yow li nga ci ko ëpp ndax nee na man doon na annahu yakunu abada yurdihi billati ka xidmati bada nafaytu dannahu bi anniya alxadim bima wana an mislihi kullu qadim kullu xadim moo tax ma ne ko la anta alxadimu lfaddu fi xidmatin lahu taxaddad wa faaqat kullama minhu qad yunal kooka mooy kuñ tànn ka mooy kuñ kuñ kuñ ka mooy gayndeeg noon yi mooy géej ga ci tab te xolam bu tedd ba mooy ndabul baax mooy ndabul tab mooy ndabul yiw yow nag yow danga nga saxoo jikko yonent bi sallallahu alayhi wa ak ndonoom da nga sax ci jikko yonent ak ndono yonent bi ci ci ci lu feeñ ak lu nëbbu képp ku ci am lu baax rek li ci am ko raw képp kuy am lu baax ci yonent bi ci biir ci bitti da nga ci am ko raw kon nag xilaafatu xilaafa ngën bindeef yaa ko doon ak say wax ak say bind ak ak cofeel ko sof u sax koo xam ne sa cofeel ak say jëf ak say wax ak say bind don nga ci ngeen ji bindeef yow gindi nga jubal nga gaa yu baax yi teg leen ci te yoon wi gën te sa yoon wii nag mooy yoon wi gën ndax mooy diine mooy xéebar ku ñuy balluloo fu ñuy taatane xel ñëpp ñu ngi daw si yow nga di leen woo man di di dina jëmee ci ngëneel ak njub ndax yow day tagg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli nga ci moom roy nga ko ci ci defin woo xam ne kenn fekku la ca képp ku mës a liggéey léegi rek sa liggéey gënum liggéeyam moo tax nandal nañ ñu ci sa mbaax ci sa ndox mu neex mi dañu nandal ci dootuñu mer mukk ci dootuñu mar bañ màndee ba dootuñu mar dootuñu réer itam ndax sa mbaax ak sa ngëneel moo tax ñu ngi ñaan ci yàlla lay ñaan ki sa barke mu defal ñu gërëmam ak ndimbalam ak lépp lu lu noonu rek wala lépp luy njàqare wala lépp luy métti rek yàlla tàqale ñu moom yàlla ñu yàlla musal ci ab feebar ci sa barke sa barke mbind yu barkeel yi sa taay mbind yu barkeel yi sa xasaayid yu barkeel yi yàlla ñu yàlla musal ci ay feebar ci barkeel xasaa yi xasaayid yooyu nga xam ne lépp lu ñuy defal yonent bi ci lu baax rek moo ko moo ko kowee képp koy roy yonent bi rek li nga wax ci xasida ak li nga wax yonent bi moo gën a koy la koo koy def ñu ngi lay gërëm yow sëriñ bi ñu xam ne lu ñu am ci lu baax yow yow sama sëriñu sëriñ ndax man ni ma koy wax Cheikh Amadou Fadel moo sama sëriñ waaye Cheikh Amadou Fadel nag sëriñ tuwaay sëriñ moo tax mu ne ko yaa Cheikha Cheikhina yow sunu sëriñ sëriñ kon nag ñu ngi ñaan ci yàlla li ñuy def ci lu baax lu nekk rek nga nangul ñu ko ndax yow jubal nga musul nga ñu bare bare bare ci sa ngëneel cay maa yërëm ku la wan gannaaw cay maa yërëm ku la jubuwul waaw kon daal loolu ci gàttal rek mooy eh, li xasida gi làmboo daal julli bi rek sëlmal ci barke bi yonent bi ak ak waa këram ak saxaabaam ak sëriñ Tuubaa ak xeetu yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam kon daal barkeelu bi bu bëggoon a tekki seen loxo tey mooy loolu moo tax dama ko dama ko dabbo daaxee ci waxinu arab dënk ko ci turu sëriñ bi di abdullahi wa xadimu rasulihi dama ko waxee rek jël araf bu nekk rek def ci bayti boo xam ne bayti bi ca araf yi lay tàmbalee daane ci araf yi mu ne alimtu yaqinan annaka cheikhu wala xawsu وأن الذي عاد جنابك يقمع بدا لي حقا أن حظك وافر من الله رب الناس لا تعرف الودب دأبت فريدا عابدا خادم النبي حبيبك المعصوم من قرب ذي ددد إله الصلاة والسلام على النبي من المس للأمراض بالنور تبرئ له الدهر وهو المصطفى قمة الخيور ممات ومحيانا فداء لذي البطل لأنت الخديم الفذ في خدمة له تحدد وفاقت كل ما منه قد ينل هو المجتبى والمنتقى ضيغم العدا والبحر جودا والفؤاد وعاؤه وفي لأخلاق النبي وإرثه ففي السر والإعلان جاوزنا ما حووا خلافة خير الخلق أنت ورثتها بقول وأعمال وبالحب ترسخي دللت هديت الغر إلى أحسن الغر إلى أحسن السبل طريقتك الفضلى هي الدين والمدد دللت هديت الغر إلى أحسن السبل طريقتك الفضلى هي الدين والمدد يرومك أهل النهى كي تقودهم إلى خير ما يمكن من الفضل والهدي مدحت وصليت اقتديت بالنبي بأسلوبك المخصوص يا خير من خدم روينا بفضل الله من مائك العذب وفارقنا من جودك العرش والغرر سألنا إله, إله العالمين بجاهكم رضاء وعون الله والبرء من بؤس وقانا من الأمراض الله ربنا بأثر تأليفات بأثار تأليفات ذروة من قفوا لك الشكر والعرفان يا شيخ شيخنا فمنا تقبل صالح الجهد والبذل هديت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 te moom mooy Sëriñ Tuubaa kon luñ ciy waxal luñ ci def moom lañ koy defal di ko jaara nag ci sunu bunt suñ jëwriñ ki jëwriñ itam sëñ Fallou Cheikh Abdou Baraka euh, sëriñ Abou Mbacké yàlla yàggal ko fi moom njabootu sëñ Fallou gépp ak njabootu sëriñ Tuubaa gépp ak jullit yëpp ñu leen ndokkeel ci weer yi di leen ndokkeel ci bis bi di leen euh, doon loolu rek ci weeru tedd bi leen ko ci siyaaree te sàkko ci yéen ñaan bu leen bu leen ñu fàtte ci ñaan dañu fasaale ci xasida ak kaamil bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil